leen yoo di la masaw di la jàllin ba bëggoon a xam tey lu waral sa tànk yi ci kër Thione waaw li waral suma tànk rek mooy mbokk kon na xam ne ni yaay Thione Seck ak sam ñu bokk benn baay bu leen jur voilà tey tamit aussi vraiment mu nekk tiis boo xam ne ñi koy jaale Sénégal yëpp rawatina Waly ak ñoom moom yi xam nekk na tiis boo xam ne vraiment ku ko dégg ku ne rek dafa mel ni yet lañ la dóor waaw mu nekk koo xam ne vraiment ay kàddoom rafet te tamit aussi boo gisee tamit ci ay woyam ak léppam da ngay gis ni daal bon bis bi bettu ko parce nekkoon na nit kuy bàyyi xel yàlla suñu borom waaw di koy ñaan nag fu mu tëdd yàlla suñu borom yàlla na ko fa yàlla xare àjjana bu gën a kawe yàlla na yàlla jégal bépp baakaaram incha allah ñu gis ne yaa ngi préparé en plein combat mais bàyyi nga lépp fekkoon ci ba pare yàgg coon am fu ngeen niróowee ci dëgg ci lu mu war a wax da koy wax. Mhm. yan qualité yow yokku yoo xam ne moo la gën a marqué ci moom yu bokkul ak nit ku tey la nit ku am diine la te mos ñu dégg benn yoon ci interview yëpp mu wax nag loo xam ne nii dañ koy xem te tamit deret dafa foor waaw coon suma deret la kon tamit aussi lépp lu mu jàppoon rek dama koy bàyyi ñëw teew parce que deret moo a yëngal waaw te Sénégal benn bopp la kenn mu ko xar ñaar <laughs> jërëjëf merci jërëjëf